ci sëriñ bi santoon ñu taxawu ko muy nañ ko daan limee rek waa rabitatul madaris al islami al qurani fii Touba ak waa muqaddamatul xidma ak mboolem ñu aju ci jumaa ak mboolem yi nga xam ne yëngu ñu ngi ciy yëngu te ànd koog noonu noo nga jottali bi sunu nuyoo ak sunu cant ak sunuy ñaan di ko xamal ni lam digle woon jàpp nañ ni lan ca man lépp am na noonu mbooloo mi ak taalibe yi ak bokk jullit yëpp defee ko nam ko bëggee woon bu dee ci wàllu alxuraan ji mboolem jumaa ci dëkk bi ak jàkka yi ak daara yi yendoo nañoo jàng ba waxtu wi njàngin wu sell wu teey woo ne bi dara ci àdduna nekku ci muy ni mu ko bëggee woon moom gannaaw bu nu defee ndigal la mu njëkk defal muy tuub dellu ci yàlla jéggalu ko feddali suñu taalibe bi ci sëñ Touba defee na njàng mi ci alxuraan ci dama ko bëgg xas yi it noonu la demee sëriñ xam sotu mi ngi xam ne moo ko daan jiite moo daan jiite njàngoom xasaayit mi wax na ne tasaare na mboolem dayri xasaayit yi fi ñu koy jànge ñu bokkut toog ca barab booba jàng ko fa ñu yóbbu leen fa ay bernde ngir nii jamono ji demee kon sëriñ bi ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba barkeb alxuraan ak xasaayit barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa li nga yéene ba tax nga sant nu lii ngir bëggal nu lu baax bëggal nu xettali ku àddina ak alaaxira bëggal nu ngërëmul sëriñ Touba yàlla na ci yàlla defal lu kawee sa njor li nga yéene njabootu sëriñ Touba gi yéene ko taalibe yi yéene ko bokk yépp yéen a ko bokk kilifa yi diine yi yéen a ko bokk juddit yëpp yéen a ko réew mi yéen a ko waa adduna sépp yàlla na ci yàlla defal sa lu kawee sa njort noo ngi sant bu baax di toogaas nag di dégluwaat ndigal fas yéene ñaan suñu borom yàggal la fi nga yàgganoo digal ñu yàgg ji fa seen te ba ñu jaar ci lenn looy tere yàlla na ko teewee at at at yu bare bare bare ci barkeb Sëriñ Tuubaa te suñu borom àggale seeb liggéey na ko bëggee ci barkeb Xaadimul